jërë ngeen jëf mbokk yi ñoo ngi leen nuyu di leen jaajëfal di leen jox seen wàccuwaay bu baax a baax di leen wax ne nag tey jii ñoo ngi fii ci émission mag bi nga xamante ni mooy jàmmaarloo mbokk yi su ma nag xel dem ci fans yi waaye bu nee jàmmaarloo xel yi dem ci mbër yi nga xamante ni ñoo dugg ci biir géew bi di jëflante te nag ma dala fi ñaari xale yoo xamante nii kii moo ngi woowee Olympique de kii moo ngi woowee école de lutte Falaye bale euh, sama droite maa ngi fi am ki nga xamante mooy fils de Ibou euh, sama gauche maa ngi fi am ki nga xamante mooy Sokh 2 mbokk yi mu nekk ñaari xale yoo xamante ni ay xale la ñuy bàyyi seen waa ci làmb ay xale yoo xamante ni bu ñu amee combat ah, dinañ wane jom fulla fayda bu ñu ci stade bi kenn du ne kenn du laajte ana mbër mi te bu ñu dongalee tamit ah, sa day sedd balaa loolu nag dama leen bàyyi ñu nuyoo ñu doog a waxtaan wi mu nuyu ma njëkkee ci kan Fils nuyu naa maa ngi maa ngi gannaaw sant yàlla julli si yonent bi ñaari waay yu baax ñu sant képp kuy bëgg Fils de Ibou rek. maa ngi lay bëgg di la ziar rawatina fu ma jóge waa Ngor maa leen di nuyu bu baax waa Kër Moussar waa Thiaroye rawatina fu mu juddoo waa Mbelu ngi Gandiaye arrondissement Gandiaye lépp maa ngi leen di bëgg di la ziar di bëgg képp kuy bëgg làmb rek maa ngi lay bëgg bu baax. mais da nga xaw a seet da nga liw da nga ndékkeegul loolu. dama xiif quoi dama ndékkeegul loolu la. da nga ndékkeegul waaw. Ah, xam moom sama plateau bi moom bu fi nekk naa nekk di raayante dama koy tas léegi ku ne dem ñibbi. non non waaye mënul am. Ah. c'est sant bu baax di julli si yeneen bi. Mm-hmm. sant sama yaay. sant sama nijaay jibi sant waa Ginaara yëpp sant waa Pikine sant waa Casamance yëpp waaw di sant sama booy ma àndal mbës. ak waa RDMK yëpp ak waa ENDA ak waa Massa Waranka bàyyi ma kenn maa ngi nuyu ñëpp waaw di nuyu sama mag nag ba ci États-Unis jëli. ak boobu waaw mu nekk moom daa daw moom daa xool làmb ji ma xaw a kii mu daw dem toog. non c'est que du daw sax États-Unis gën a nooy kilim kii baa ngi fa nees baa ngi fa. <laughs> non jëli jàmbaar la bu baax a baax. dëgg la champion la amoon na wàllam nekkoon na ci làmb waaye gannaaw daa daw nag ñoo ngi lay wax. dëgg la <laughs> non jëli dawul sax ndax mbër dem na fi cinq ans ñëwaat bëre. Hmm, kon xalaat dafa nekk si lu ko gën a làmb rek xam nga moo tax mais bu ñëwaatee bu bëggee bëre mun na bëre ndax mbër toog na fii nii Sénégal fii toog huit ans bëréwul te teewul mu ngi am yaakaar léegi nii toog na cinq mu ngi te teewul mu si làmb léegi waaw di ñaanal Sokh sama mag si combat bi mu jëm ni yàlla defal ko si ndam bu sedd waaw di bëgg waa ginnaaw raay yëpp nag di nuyu waa Igri Falaye Bale. lu leen dugal ci franc. di nuyu sama père Gilles Bale. lu leen dugal ci franc man loolu ma jaaxal. mais lamb la rek lamb la la de la rek. ndax laaw moom bu ñu la joxee sa morom ngay xalaat ne mun naa ko daan wala ma kaa daan nga tekki dem seeti leneen ndax boo ragalee rek tooñ ñi nga àndal waaw te ragal moom yàpp suñu borom la ko wax fii yoonu ragal amu fi ndax làmb moom. na lay wax dafa mel ni ci ndam lu rëy nga jógee ba ki démb. waaw dëgg la merci merci mais xam ñun moom ay xale lañ. Mhm. saabu ñu bëree bu ñu daanee ak buñ ñu daanoo ñu baaw passé na daal ñu ngi si leneen xool lu ne suñu kanam ñun noonu la ñuy doxalee quoi ndax affaire yi xam nga rek. amaguñu dara si làmb moo la tey jii nii lépp lu ñu mun di am tam nii nii nii nii xëy mu victoire bi neex ak naka rek nuñ ko amee baax na dañuy xam jël lépp te ko suñu ginnaaw rek te xool ne suñu kanam ndax dañoo war a am xaalis si làmb. dañoo war am xaalis si moom mii mbokk yi mu ci 4 komba 3 victoires benn defet ma ñëw ci fils yëpp yow suma ma juumul ci 3 komba 3 victoires kan ak kan nga bëggoon. man Marlo laa daan Marlo bu Jandeer booy si gan nga ne Marlo Marlo bu Jandar waaw booy ak caatu samsam laa mujjee. ak caatu samsam. waaw. bëri nga ak booy booy coow caatu samsam. waaw bëri na coow de waaye lam moom du coow kese. naka ngeen bëree ñaar. comment foog naa amul une minute sax de. dëgg yàlla. kon loolu yomb na ma journée ñaa journée boobu la woon. maa moom tuuse nañ tuuti rek dañoo roofoo rek. mu jeex plaqué ko mu jeex lan moo tax ñun moo xamal làmb moom newatuñu si loo xam ne ni ay gan lañ. Mhm. ñun dañ ko tarbiyo bay suñu yaram dafa màndi bëre. Mhm. dañoo mbar papatam papat ba sonn. moo tax at bu suuf lee rek ñun dañuy gis faay fi ñu war a jaar yëpp. ana waa olympique ma fa di di bëggee gaa yëpp xam nga di ñaan Siteu bu Ngor tey yal na ko yàlla may ndam bu dugg incha allah. Olympique donc amoon na yaakaar naa kan kan fa nekkoon amoon na xeeru ngoon numéro un. fa la nekkoon numéro un fa la nekkoon. xeeru ngoon numéro deux booy bawol. maa ngi koy bëgg bu baax di ko ziar. booy bawol dem dem na États-Unis toog. toog États-Unis daal man war naa faa dem xool damay ñibbisi wala man tamit damay toog. non moom day moom day ñëwaat. ñëwaat déet bàyyi li nga xew. non bawol day ñëwaat bawol moom bàyyi na mën na ñibbisiwaat nag yàlla ñibbisee ak jàmm ak saa mais bawol moom bàyyi na. comme li saa wax léegi rek bu ñëwaatee gars yi buñ ko nangoo jël tamit day bëre de. ñu làmb day gën a metti moom boo yi mu gis nii. bawol ngay waxal de kooku daa bari bëri si làmb ji wala loolu nga xamul. ah waaye teewul dawal. takusaa ñu gën a métti fii moom moo ko bëri. waaw loolu am na moom. voilà bu ñibbi kanam yëpp da nga koy bandaas demee nga koy. waaw waaw waaw mun nga ko xeeb nii de waaye bu bi soufflé si biir géew. Hmm. kenn du ko xeeb. billaahi ngeen entraîné yéen waa olympique de Ngor. ñun comme ni ñuy entraîné rek. instant nii xeeru ngor la fi yàlla teg. xeeru ngor numéro deux waaw. boo xoolee booy bool noonu booy bool mooy loolu dem na xeeru ngor numéro un tamit. bàyyi na léegi xoolal moom numéro 2 moo fa nekk uuf ñu rek nekk di tarbiyo rek ak suñu papa xam nga mu ñuy teg si yoonu làmb rek loolu kese la. boobaag léegi nga jóge ci ndam boobaag léegi mu ngi bëgg a yàgg. waaw yàgg na mais am nga gars yi moom làmb ji comme lu ma la wax rek luy luy lu nooy la gars di wër. te man dama jàpp ne làmb amul lu nooy boo bëggee doon ndaanaan da ngay daan mais nekk ci biir làmb est wër lu nooy war na la. non waru wax nii boo bëggee doon ndaanaan. Mhm. da ngay jaar fu métti daan ay ndaanaan ba pare door a nekk ndaanaan. mais di xal ay yoon di xool boo xoolee xale yi ñuy xàllal yoon yëpp ñuy dem di xool nooy xoolal seen seen arène muy defee. ngay dem ba ci kanam commencé jot booyu saf yi ñu fere ne la deux combats deux ay deux défaites yooyu nga toog. nga découragé waaw da ngay moo tax da tàmbali fu métti di xuus di dem di daan say morom di bëri ay ndaanaan. man dama bëgg di bëri ay ndaanaan ndaanaan bëri. ñu naan ñu naan ñu naan kii moo mën. waaw kii moo mën billaahi loolu laa bëgg naan ma kii moo mën fuuf mais boo xoolee ñu may dajale dañu naan ah kii fii de boo ko bu ñu xoolee si wàllu làmb dañu naan kii moo ko te man bëgg mu loolu noonu dama bëgg samay mbokk di tiit des fois si kombaa bi man loolu moom moom laa bëgg man. xam nga kii ma waaw xam naa ko nii rek xamul làmb comme dab rek. waaw si làmb rek laa ko xamee. tegal foofu sa baa ma ñëw <laughs> yow dama gis ki nga xamante ni mooy jëli nekk ci làmb soo ko nekk ci làmb la moo dugal ci làmb da nga gis ñuy bëre làmb neex la wala moo dugal ci làmb ndax defe naa bi nga duggee ci làmb ak léegi yàggul. non non yàggul 2018 <laughs> laa kii bëre sama premier combat le 11 février 2018 laa bëre. Hmm. waaw laa soog a dugg ci làmb. ah làmb dama doon gis comme samay mag rek comme ñoom jëli ñoom sooku xam nga dañ daan dem lu bëri ay mbapat wala bu ñu daan dem entraînement fajar gi nii su ma yegee du ma entraîné bu ñu teel seen i daal ñu dem entraîné ba ñëw fekkaat ma fu ma toog loolu noonu laa gis daal mu neex ma si ñoom trop mu nekk affaire jàmbaar nag. ndax ñun moom suñu kër sama papa xam nga rek daf ñu yàgg a affaire jàmbaar moo tax lu yomb bëgguñ si dara waaw góor moom na nga tàmm lu métti pour ëllëg boo demee ba gisatoo maanaam say waajur nga mun a demal sa bopp. Mm-hmm. a làmb nag ñoom jël laa gis ñuy bërentu ay mbapat yi sama yaay sax da leen doon tere mais man ñoom bu ñu dem guddi yi dañ doon laaxatu di ma yeewaale ñuy demoon maa doon toogal ci mbugaay moom soo yëpp waaw ah, loolu daal laa gis mu neex ma moo tax ma dugg si làmb. Euh, ñu gis euh, ñoom ñoom Sokh ak Jet Li ñoo nekkoon écurie euh, ban écurie sax lañ. xam sa cosaan xam sa cosaan. mais ñu nga dugg si làmb ñoo tax ma dugg ci làmb nga jóge fa. Hmm. dem écurie Falaye Baldé lu war loolu. dëgg la xam nga man ma wax dëgg yàlla yàgg naa bëgg làmb nag mais maire bi musul bëgg ma nekk mbër quoi. daf may tere. waaw nag benn kër nag ñetti mbër. Mhm. dafa xaw a bàyyi. dëgg la maire bi moo xam ma rek moo waral loolu quoi moo musul bëgg ma nekk mbër ndax dafa bëggoon ma bàyyi laamu dem seeti leneen quoi comprendre nga ndax mu ne loolu da koy stressé. te xam mhm. bu toogee xelam du dal affaire yooyu noonu te comme maa gën a tuuti. waaw mu ne laamu dafa metti naa bàyyi laamu mais comme xam nga yàlla mi dara tewul rek làmb laa bëgg musuma am combat sax ba tàggoo ne ko damay bëre ndax dama koy laakoor su ma amee combat sax du ma ko wax ndax dama may tere. waaw fa nii dafa ma doon tere mais instant yii nii naxante naa moom ba tons bi wax naa moom léegi moom xam na ne maanaam loolu bëgg-bëgg la quoi ne léegi accepté na pour bàyyi ma ma nekk si làmb quoi. kon bi ngay def premier combat deuxième combat troisième combat yooyu yëpp dama doon làqatu. ba du làmb jot yooyu yëpp day jot nii dama koy sax maanaam ragal sax wax dama am combat xanaa daal lu muy xamee ndax moom combat comme ñu ne suba la làmb ji mu jéeg saay gis bagage yi ñëw si kër gi affaire yooyu dama doon jëli bagage du ma ko wàccee suñu kër. dama koy dénkaane dama koy dénkaane wala mu <laughs> yóbbu mujj billaahi mais xam nga rek nit ak bëgg-bëggam. Mm-hmm. moom amul dara loo xam ne maanaam da koy xel ñaar ñun sax mais moom dafa xam nga rek day stressé wu noonu quoi comme ñetti doom xam nga loolu noonu moom daf a déranger quoi. Mm-hmm. mu ne woon mu ne comme yaa si gën a tuuti xam nga su ma soñoon daal nga dem seeti leneen mais man saa yu waxee ko naan waaw ndax nit moom xam nga Mhm. sa waajur bu waxee doo dëgëranteeg bopp moom da ngay naxante ak moom rek. te nit amul lu dul waajuram. Mhm. waaw man naxanteeg moom nag boo wax dëgg yàlla si combat bi moom la may soog a bàyyi pour muy bëre quoi waaw si bi nii la may soog nango bàyyi pour ma nekk mbër. waaw te tam xam nga li ma dugg nii bëgg-bëgg moo ma si dugal. Mhm. te tam xam nga daf ma doon tere man du ma bëgg a woon ne maanaam carrément lii nii xam nga dama si ñaako jom wala nii damay deful ak fayra moo xam ne kii lu mu bëgg nii ñor na ko. waaw loolu moom gën a dugal si làmb nag. lu waral nga jógee euh, fee dem dem dem dem ci Faa kii Faa laay Baldé. waaw dëgg la am nga rek. liggéey ndax juumul distance bi mhm. xaw na sori tuuti. waaw tuuti mais tam yëpp benn la comme Pikine la rek. ama Zil Baldé moom sama père la moom sama papa la moom lu muy daj ci doomam yi ñoom Pokola ñoom Zakob ñoom Babacar lu ko raw lay daj ci man ak samay morom yu fa nekk ndax dama bàyyi ikiri dem foofu noonu. Mhm. ñu jàppee ma maanaam comme ñu fa nekk comme ñu ma fekk foofu noonu. ndax feenee xam nga ñun ñett mënuñ fa nekkoon doon sama yaay daal loolu la gisoon quoi comprendre nga. Mhm. léegi sama tons bi ne ma comme léegi mënoo nekk fii nii ndax sa yaay moom xam nga bëggul yéen ñett ngeen nekk benn place léegi yow comme yow yaay xale il faut nga génn man ko amul problème la woon bëgg rek mun naa ko defee noonu ndax xam nga làmb moomu ñor quoi te yaakaar naa Pikine ñun ñëpp benn lañ. Mhm. Igiri Fala Igiri xam si waan Igiri ñoom Boy Niang Pikine mbooloo yëpp benn la foo dem war faa mën a nekk mais yàlla nag waa faalaay la ma booleel ma nekk foofu noonu te boobu ba léegi nag moom fa demee maa ngi gis sama bopp si entraînement yi si lépp ama dafa may jàppale comme ni muy jàppalee ñoom Sakho ak ñoom Pokola ñoom Babacar ak yeneen booy fa nekk yëpp père Jules Baldé tam waxi nopp ak waa équipe bi yëpp waaw su ma waxee Jules Baldé bàyyiwuma kenn waaw maa leen sant di leen ndax def nañ lu bari si man lu bëri def nañ ko si man ndax man bu may soo a dem foofu noonu xam si laa nekkoon di entraîné boobu mbapatantu laa doon nii rek su ma daan bëri mbapa sax maire bi du ko yëg may dem sama benn kër copain abu ah, foofu noonu sër après ma dem noonu daal laa duggee noonu si làmb. trois sama premier combat kii moo ma daan Fils de Max. Fils de Max waaw moo ma daan sama premier combat. Fils de Max men. waaw moo daan duggoo ci booy man c'est première fois sax ma bëre nii comme sama combat yi passé gis adversaire bi nii. signature avant avant waaw mais man combat yi ma mos a bëre yëpp stade rek laa gisee adversaire bi. semence da la ëpp doole da la ëpp taay. no xanaa xanaa xanaa xanaa manager bi gisul woon lool. non du question la ëpp doole ëpp taay sax affaire moom boo jàppee ne maanaam kii daf la ëpp doole rek loolu ngay gis mais maanaam gëm-gëm dafa am solo si nit quoi gëm-gëm dafa am solo si nit man fii sax max xaw ma koon ba mu koy jël wax dëgg yàlla wax nañ ma ko rek bëgg bëre ba mu si dugal ma ne waaw te boobu gisuma ko woon mais tam amul tam loo xam ne dama ko doon xel ñaar quoi. ndax man nu ma nekk ragal man. ñeneen ñi kan kan nga daan. trois ñi Papa benn mbër bu ñu wax Papa Siteu bu dëkk fee buun yaakaar naa. ak kii mënoon ba ak kii cargo bu nekk Malika su ñoom général. Mhm. waaw sama combat yi passé laa mujjee bëri kii appliqué bu nekk mhm. benn baraak mbooloo. yow nag bëgg nga waa côté boobu de. non yàlla bu may boole ak ñoom rek amuñu ñun moom bëri ndaw yi parfois. duñ xamante noonu ko xam ñun ñun bëri ndaw yi ñu si bari duñ xamante noonu quoi comprendre nga dañ lay wax diw rek nga ni bëgg naa wala pare naa comprendre nga nga préparé ji nag dem entraîné ji jour combat nga ñëw dëggal sa bopp waaw. xam nga kii fii naa ko. génial dafa mel ni xaw ngeen jege yaantoo de bi diggante caaro yi ginnaaw raay. waaw caaro yi ginnaaw yëpp benn talibee dox seen diggante rek route nationale mu dox seen diggante mais caaro yi géej ak ginnaaw yëpp benn la. waaw defe naa ne su defee trois combats trois victoires nga def quatre combats trois victoires de benn defet waaw trois victoires defe naa tamit loolu làmb du ko dàq. waaw dëgg la déggoo lu mu la léegi man làmb maanaam. man nag seen xoolante bi ngeen ni kii nii man xam ngeen sama plateau bi bëgguma mu yomb. mais man dama xaw a kii sax parce que. non c'est que non c'est maanaam comme tey jii ni ku nekk. ni nga mel rek moom nga yóbbu fa nga jëm. Mhm. du noonu. waaw ndax fii nii maanaam kii mbër la man may mbër. da ñoo invité fii nii. nga laaj ma moo la wax moom nga moom da nga koy laaj moom mu war a wax. Hmm. mais man dama lay xamal leen man làmb amul benn mbër boo xam ne dama ko fi bàyyi wala. ma koy mu ne bëggul lu yomb. non wax na dëgg làmb ji léegi amatul lu yomb de làmb ji léegi lu yomb moo amatul fii nii. <laughs> non non comme <laughs> moom saa yi dañoo teel a kii lu métti. mooy ñoom moom nii nii boobu tu tàng bu ndaw la soq moo ma doon fekk suñ place fee ne hmm. bu ñu amoon tournoi boobu noonu. wala may fekk ci wax ma tournoi bi ni ma damaa bëgg nga ñëw nga xam ma boo suñ place muy foofu place Leyti Sène maa ngi koy nuyu bu baax sama mag baaw boobu noonu xam nga nuyu Modou Sène bu baax. ñëw ngaa jël avance booy dàq ko de pour man. loolu laa jàpp de man. dama ne ba xam ñeme nga jël avance booy bi. waaye da ngay laajte. waaw ñeme naa bëgg xam. jël kay. la moo tax nga bëgg euh, booy bi. du question bëgg a bëreeg booy bi sax xam nga làmb comme ni ma la wax rek. Mhm. dama jàpp ne ndaanaan ndaanaan lay daan ba pare te dama dama jàpp ne moom ndaanaan la ci làmb. daan na moom ndaanaan la xaw ma ndax daan na ndaanaan de mais moom ndaanaan la xam nga ñun dañoo xam. ñu daan tamit ay ndaanaan lañu. waaw ay ndaanaan la daan kay. làmb moom képp koy tàpp takk ngémb rek instant yi ndaanaan nga. am nga benn kele boo xam ne nii yow mën nga ko kii am na ay kele yoo xam ne mun na ko mënul ñàkk tamit mais moom ak man boo xoolee rek da xam ne lii nii combat la ñu waxee dëggantaan njaay maa rek ñun ñaar dañoo war a bëre. est ce que xam ne booy bëgg a bëre ak bëgg a bëre ak yow. non déet da nga bëgg a da ngeen bëgg a bëre waaw waaw soo maanaam làmb. non dëgg la da ngay bàyyi la parce tuddee sa bopp waay la <laughs> soo ko kenn xam na day yëngal boo fi ñëwee def yi man damay xaw a sax rus non c'est que rek affaire yi lépp looy wax tam xam nga ni mu sóoraal ñu lay seetaan quoi ndax man xam nga seetaan dinañ comprendre émission bi moo tax maire bi ba ne jàmmaarloo waaw ah. da ngeen ak coow ñoo ànd non làmb ak coow ñoo ànd maanaam gis nga fu nga xamante ni maanaam boo fa demee fii soo tàngalee mu metti boo serelee mu metti foofu da ngay tàngal muy làmb parce que dañ naan booy bi dafa xaw a nonchalant dafa xaw a kii dañ lay woon sa dëgg. keroog am na benn mbër boo ko wax de <laughs> yow xanaa <laughs> mais man bëgguma loolu. non non non c'est xam comme tey man xam nga lépp lu may def maanaam dama si sóoraale maire bi quoi. ndax man gis nga comme danga maa daan seetlu ay làmb soog nii. dama daan ñëw xam nga indi foofu noonu ay problème wala ma def loo xam ne waru moo ko def. te lépp te lépp nekkul loo xamante ni maanaam sama jikko la mais xam nga rek xër ak ni nga mel si nit ki mooy waral loolu noonu comprendre nga moo tax meer bi su ma ko tàggoo ne ko damay dem fii sax mu ne ma xoolal li ngay wax wala seetlu li ngay def comprendre nga. moo tax léegi yooyu noonu yëpp dama koy sóoraale mais du question ay ragal wala kii. làmb nag làmb bii làmb boo ci nekkee làmb la su jeexee après jeex non waa affaire làmb affaire làmb la. que man damaa gis booy yu dañ la ciblé parce que xam nga boo nee rek mbër laa. wala doomu mbër laa booy mm. la ñëw parce que ñu bëgg a jaar sa kaw. parce que booy bii nii. waaw li tax mu mu taamu la. wala hmm. boo bëgg bëgg yow am na fu mu teg bëtam. non dëgg la lu leer la wax moom. booy nag parce que boo xoolee fi mu ba sox nga booy ba nga leen di teel a canaliser wax kii kaay toogee nii kii kaay toogee nii. non boo. xoolee ko waxul lool dina dina dina la kii. non moom boo xoolee lu mu wax dëgg la man amu ku may ragal si làmb wala ku may moom xam naa ko bu baax champion la. te bërekat la man xam naa ko bu baax wax lu ne si nit ki bu ngeen bu ngeen xamante nii ñëw fi naan non xam naa ko nii nii. te non nga yàgg seetaan. non xamala moora. xamala moora maanaam su ma su su ma ko xamuloon du ma la ne xam naa ko. loolu moom mënuma ñàkk a xam. moom bu ko xamuloon. parce que da ngaa toj du question toj sa defaguñ dara. mais en tout cas ñun moom fu ñu dugg. Hmm. dañu xam ne ñii kii ñëw na. comprendre nga bu ñëwee dañuy war ne fulaak fayda lu ñu yàlla may ñu jël. parce que ni ngeen di waxee ne dafa mel ni da ngeen a dawan. non amu si maanaam wax lu ne sa morom du wàññi dara lu nekk si yow. non bu yow ay qualité am. tag sa bopp. non affaire tag amu fi na xamala moo tax. Mm-hmm. man li ma gëm. ah mbër bu taxaw sama kanam maa la mun te aw ma ku may bàyyi si lamb non su ma gëm-gëm su ndax nit moom maanaam li xew suba yàlla la ko xam mais nit sañ ngaa wax li nga li ne si yow ak li nga gëm comprendre nga mais lamb suñu boolee man ak moom dañuy bëre ndax mbër la bàyyi ma fi kenn du ma tudd benn tur ay kii laa bëgg a bëreeloon nangam ak nangam man am naa ménagère musuma tànnal sama bopp combat adversaire yi ñu may jox la première fois ma signature ñu jox ma ak ñu fois kon xam nga ne maanaam ku yoon demee noonu. Mm-hmm. am na mbër yoo xamante ni ñu ngi fii nii dañ lay woo ne la kaay sa adversaire ngi nii nga gis ko boo ko ñemee nga ne waaw boo ko ñemul nga ni déedéet am ñoo waaw dem ba si biir delloo avance. man loolu yëpp mosuñu ma ko defal te musuma am lenn lu ma si xel ñaar ndax maanaam comme lu ma la léegi rek bu ma demee bay xool góor waxuma la mbëre bu ma demee bay xool góor am lu may xel ñaar moom ma bàyyi ko ndax suñu waa kër xaaruñ loolu si man comprendre nga si làmb nag laa fi nekkal mais am na fu ma teg sama bët moo ñi nga xamante ne maanaam dañoo daan samay mag. waaw soo déggee mu wax loolu noonu. Mhm. maanaam xam nga deret dafa fort. Mhm. man samay mag maanaam comme ni man su ma amee làmb nii du ma am ak benn problème ak policier ndax policier ñun lañ fi nekkal ñun la ñuy aar. Mhm. mais soq wala jëli saa bu ñu daan bëre policier dina ma dóor wala ñu wàccee ma wala ñu génne ma yóbbu ma seen oto yi te loolu noonu yëpp xër rek moo ma koy yóbbee waxuma la nag ñi nga xam ne ñuy ñëw bëreeg sama mag daan leen dëgg la dama leen nangul i victoire de ndax yàlla moo leen ko may mais maanaam man su ma leen gisee sama xol day tàng mun naa la limal nag. <laughs> limal ma. laa Pythagore laa si gën a mere ndax moo ñu amel 2-0 suñu kër. daa ñëw daan mag. waaw moom laa si gën a mere nag. te keroog ba keroog may bàyyi laam ba keroog may dee mu ngi dégg nag xaw ma ba xam dina ma seetaan soq mu ne moom même bu demoon ba nekk roi des arènes sax dina bëri Lagos yow tamit nga ñëw nga ne moom boo fii ba ba ngay bàyyi làmb yaag laay pédagogue bu ngeen laaloo doo am lu la neex non du ma am neex laay pédagogue fekk daanu ma ko si làmb non non gëw ma ni naa doomu dàngu mbaytin ak bébé Saloum mbër yooyu ma leen limal noonu ah ñooñu naa ñoom bébé Saloum nag ñooñu wax dëgg yàlla instant ni moom gëw ma balaa maa yegg si kaw dinañ ma xaar quoi mais comme ay ñoom laay bi daa ko ñoom dong dangu yi ni ay mbaytin ñu bëgg naa leen trop ndax ma yàgg a te loolu noonu wax dëgg yàlla jooyoo noonu ma daan jooy may am lu ma metti mënu ma kaa faj bis ma maagee ba jëm si ñoom xay bu ñu naroon bàyyi làmb sax dinaa leen war ba gis leen ku si yor yat sax dina la daaneel ba pare yëkkatiwaat la jox la sa yat nga dem waaw mais sa diggante ak fils de Ibou loo fi dawee fils de teg ko fi di wax ay ñoom laay pédago mais booy bi booy bi li ma wax yëpp ci yow gi bëgg bëgg ak yow nee na bu bëgg ak yow ni mu lay def yëpp. déggoo lu mu la wax dama la ne. nag fii sa Ibou. <laughs> non xamante boo boo déggee ma la suñ bëre ñu ñaar dafa neex. Mhm. xam nga bëre sa naataango dafa neex xam nga bu ma nee woon ma ay ay. ay mais bi temps moo ngi toj ah, xam nga combat yi. wala dafa am sa bën moo bëgg a ah, léegi man tojuma. bu baax yaa ngi toj bu baax. <laughs> trois combats trois victoires <laughs> yaa ngi bu néew loolu daal man tout le temps damay damay bëre. Mhm. bu ma bëriwul fii maa ngi si àll bi di mbappat tout le temps laa la wax nii. mais nag des fois da ngay gis ay mbër euh, ñu bëggante kuñ ci seeti des fois ngay laaj lu seer wala nga ne non du mag booy bi wala moo nañ ma xoolal kii. non ba bokkoo ci mbër yooyu. non man duma def loolu. man sama ménager rek mooy waxaale promoteur bi lu mu wax rek garaaw la. est ce que monsieur ménager. damay bañ na génn fi moo promoteur ñu naan non c'est que. non non du nekk si man de du yàqoo si man de. fa dëgg yàlla moom. Hmm. waaw du yàqoo si man de. soo ko yàqoo ci man comme moom lu mu wax rek ko ñoo bokk man ak moom man Mada Ndiaye. combat yi ma mës jox yëpp fii laa koy waxee xëy na dina ma seetaan. Hmm. musuma xam luñ may fay musuma lijjanti luñ may fay. am nga combat adversaire diw la loolu laa am si affaire yi. dem ànd ak say mbokk loolu la si affaire yi moom sama nijaay rek lay waxal te man du ma dem si tons bi musul am dem si tons bi di ko laaj ñaar lañ ma fay wala adversaire nii wala adversaire bi naa waaw parfois nag di ngay bëri ñu laajatul adversaire nga laaj tons bi pour mu laaj ma daan loolu kese la mais bu dee wàllum xaalis ak ay combat yi yaa ko non xam nga làmb ak loolu ñoo ànd làmb loolu ñoo ànd mbër bu la naan soxla mu tur adversaire day wax lu ko neex rek ndax làmb ak loolu ñoo ànd waaw. parce que mbër mu ndaw des ñu gis ne comme mbër mu ndaw day ñamantu entraînement naka ngay entraîner séance d' <laughs> entraînement yi. entraînement boo jugee sax sama fit bi day dem. <laughs> ndax la. ndax Bale wuu père kay <laughs> père maa lay nuyu. père da lay teg coono yoo xamante ni nii sañ ta bañ la dangay def par force. Ah, ah, non amul ay dama sonn amul amul Zil loolu entraînement par force régulièrement nag. da ngay entraîner matin midi soir heure bu ñu la convoqué entraînement heure boobu da ngay ñëw par force. ci kaw nga am combat ñun saison bi yëpp dañuy entraîner ñun suñu équipe saison bi yëpp dañuy entraîner ñun suñu équipe ndax Zilbal bëggul loolu quoi bëggul loolu ndax da ngay gis parfois du ma sax wax ay yenn équipe mais ñun suñu équipe rek laa xam quoi comprendre nga. Hmm. waaw ndax man suñu équipe laay entraîner. Hmm. waaw ñun bañ na ko boo boo toogee deux jours trois jours boo ñëwul sax dina la jënd xool si loo nekk. dina lijjanti xool si loo nekk nan moo tax ñëwoo entraînement boo ñëwee nag moom na la leer moom lu mburu dul daj ci taal sax di nga ko saal la nga leble yëpp moo ñun moom suñu équipe moom wax dëgg yàlla ku ñu xam ku ne xam ne dañuy entraîné ba si suñu combat nii mujj yi nii yëpp nii ama lañ doon àndal di entraîné Jules Baldé daf ñuy teg lu méttee méttee métti métti da ngay moom dalay xool sax mu xam ne yow mi mënatoo mais dalay encouragé maanaam di la yokk jom di la xamal ni carrément entraînement yi su méttee fii boo demee fële sax même bu méttee di nga tenir. Mhm. comprendre nga ñun esprit boobu noonu la des su ñun quoi moo tax wax dëgg yàlla boobu ba léegi amul luñ si rëccu. waaw ak coach yu fa nekk yëpp ñoom Yves ñoom Lise ñoom Fallou ak ñoom seex ak staff bi sunu mag ñoom sondeel ñëpp waaw dañ ciy jàpp bu baax waaw ak samay morom yu fa nekk nag na ñun moom dañoo ne si équipe boo xam ne daaw na ko samay morom ñoo fa ëpp mhm. mais ñun amul xaaj seen amul kii di wax ak kii amul kii. ñun ñëpp benn lañ ba ñoo ko ba dañoo am benn groupe WhatsApp pour mbër kese ñun ñoo waxtaan suñu biir xam nga ñoo siy xam nga lu nga xamante ni maanaam ñun loolu lañ sentir wala luñ bëgg comprendre nga te wax dëgg yàlla boobu ba léegi nag maa ngi si écrit mais mosuma fa gis lu ñagas comprendre nga moo tax man écrit faalaay moom wax dëgg yàlla gongo ko waaw nice waaw waa Olympique Dangote parce que yéen moom defe naa géej gi jege na te et mooy loolu naka ngeen ni séance d'entraînement yi da ngeen di xëy entraîné yéen defe naa ci taatu géej ngeen daan entraîné de. waaw waaw mais yéen a ngi si école bi la ñuy kiiyee léegi. ah yéen a ngi ci école bi. waaw moo tefes bi ñëpp a fay nekk ku nekk fay ñëw tefes bi xam nga moom moom mënoo ne kii du dugg ci tefes bi. mais bu nekkee école bi xam am na sécurité. sëñ tëj quoi waaw. moom école moom xam nga Père Ibou Diop moom ku nekk xam na ko paa boobu noonu du may dara. xam nga bu ñu xëyee dañuy dem saali bu ngoonee ñoo ngi foofu noonu di contact wala di physique. des fois séance daal ngeen def. waaw bu la neexee bu la neexee nga def trois séances boo xëyee nga daw ba ay monument def grain dem foofu ñëpp si waat aller retour. mais bu fekkee bu dul bu dul bu dul bu dul Sokh 2 ñan ñoo si adversaire ci làmb. non man moom ciblé wu ma Sokh 2 comprendre nga. Mhm. dama jàpp ne xëy na ay xale lañ rek làmb. te war ngeen mën a waaw war nañu mën a jëflante la mais maanaam si làmb ni xooluma ne kii laa war a bëri boo xoolee man samay naataango rek man bëgguma bëri keneen koo xam ne du sama morom sama génération rek. yow nekkoo fi di ñaan paa yi sax. waaw non non non man làmb boo daanee koo xam ne nii paa la loolu ban sens la am mooy bëri say morom tamit say morom mënoo leen jeexal gaa mais na leen daan ba ñu xam ne mun nga lim dix personnes yoo xam ne nii say morom la daan nga leen. ngay door a xam ngay door a seet ay loos. <laughs> ñun boo ñun fuñ jaar dafa xaw a métti de si làmb. billahi yow trois combats nag mënoo koo def di naan jaar dafa métti. fii sa Ibou Ba ay def. maanaam ñetti combats booy di fi dara. trois tamit du dara mais boo xoolee yéex a dugg ci arène rek waaye lu ñu def mbapat xaaj bi soo defaguñ ko si arène fa dëgg yàlla moo tax duñ fi xaar tamit combat de. am booy dañuy daw promoteur tëggee nga bëre bu promoteur tëggul nga dem. ma wuti xaalis ma wuti xaalis si àll bi ay nag. jeex na. ñan adversaire yi. adversaire yi ma war a bëreel ku ñëw baax na man moom ku ñëw baax na billaahi ku ñëw baax na. yow xam yow yéen a yéen a fi ne yéen a ñu gën a xam laam yéen a ñu gën a xam. suñu général non mais nag tey des fois da ngay gis mbër moo xam te daanaka ku ñëw baax na. soo ko limalee mën a non du ma bëre ak ñooñu maanaam dara. waaw mën a du ma bëre ak ñooñu. xam leen bàyyi rek. ñaa ñaawu ndaw topp naa ko mu ne mu ne mu daw dem jëliram goraaw. non yàgg yàgg dinañ mais yàgg ñooñu ñooñu suñu sa ko baax. ñoom ñëpp yàgg yàgg dañuy bëre ñun ñëpp si biir. mi ko waaw waaw boo xoolee ñun ñëpp dañuy bëre fal force. Hmm. ndax ñu ñoo débuté xëy na teel a am combat da cee nekk wala ay rawante combat yooyu ne te rawante yi du na mun ngaa bëre ci année bi ñaari ñaari ñaari komba ñun boo xoolee benn combat lañ mën a am ci année bi ndax gars yi di daw loolu di daw instant bi laa waroon boole ak Boursin ba école de ñu dem ba ci diggante mu mu daw far mu mu blessé man xam nga loolu tamit. léegi yow daw ci yow. dama man mënumaa comprendre loolu moo tax ma dem ba ba ci ma dem ba patatu ma ma toog noonu rek. boo boo xoolee li ngay xeex moo bay wala la demee. du gaa laaj sax. xam nga gars yi mbër dañoo ragal bu ñu gisee comme ngay ànd ak ay yenn mbër yi wala ay ay ay kii dañuy foog ne comme noonu nga mel. bu ñu xoolee de gis naa la caaar yi nga ànd ay rëg rëg. moo ma yar kooku suñu diggante maa moom ay fereel lañ kooku suñu dëkk la bu muy ñëw foofu. maa doon tànk nii muy ñëw kër ga. Mhm. boo xool seen xam nga ko bu dee leyti. xam nga ko kooku mooy sama mag. kër ga la doon ñëw ñu koy ànd si mbabat yi ñuy toog ci yi ba ma màgg ñëw dakaar ñëw nekk si moom mu may yóbbu di di ma yóbbu fu ne ba ma ba màgg xam nga kooku su ma diggante moom du question ay caaro yooyu noonu ay frère lañ boo xoolee foo foo dem boo boo boo bu taxawee nii maa ngi taxawee tam combat kese laa jegewul te maa blessé woon boobu ba léegi loolu kese la. léegi tane nice. nice waaw. yow moom xam naa du ma laaj euh, bu dul bu dul fils de Ibou ñan ngay bëyal ndax yow moom xam naa lim nga fi ay paa yu nekk ci kaw mais booy non du question ay paa la non c'est que ñooñu waxu maanaam waxuma nii nii nii nii nii danaa bëri ak ñoom. mais nañ la waajal daal bàyyi la xel. non nañ ma waajal ay suñ ma waajalee tey ak suba ak yëpp laa si yemale bis buñ ma jëlee moom sama bakkan laa leen di jaay. xëy si kanam nag ndax instant yii moom dëgg yàlla ñoo ma jiitu quoi. booy man du ma tudd kenn. si man xam nga ñan laa soxla. ah sa diggante ak Jaxal combat du ko daax. Baba Jaxal ah waaw moo bëre keroog moo moo moo bëre keroog yaa ko gën a xam déggu mu la wax bàyyi ma fi kenn amul mbër bu ma fi bàyyi wax na de non c'est que li ma la wax sànq li ma la wax sànq déggu lu mu la amul benn mbër boo xam dama lay xool di xel ñaar wala ma la fi bàyyi si làmb làmb moo ma fi bàyyi làmb moo ma bàyyi fii nii suñu waa kër fu mu toll nii làmb rek lañ ma sas te instant su ma góorgóorul moom maire bi dina am lu mu wax waaw comprendre nga ndax dafa ma tere ba soon instant damaa wax bañ ma laa invité fii te nuyu ma Aline Diop Pape Diop. waaw xam nga ñoom Kordu. dëgg la waaw ñooñu ñëpp maa ngi leen di nuyu di leen bëgg bu baax baax. maa lay nuyu waaw dëgg la maa nuyu Aline Diop maa lay bu baax ak Papa Diop ak waa kër gi yëpp ñoom Ndeye Rama maa leen sant bu baax na ñooñu moom ñoo bokk ginnaaw raay. te dañuy sonn si man ma jàppale. waaw kon tamit bu ma toogee fii jaaru na ma gërëm leen sant leen. non di nga gërëm sax dama bëgg ñëw ci adversaire yi boo paree ñu tàggatoo. parce que temps bi dëgg la waaw non comme xam li ma la wax rek li mu ma fi benn adversaire ñu naan ay kii daf maa ciblé wala affaire yooyu noonu samay morom bëri nañ fii nii si làmb ji ku ma làmb booleel. mais man man dama bëgg mbër bu am fit ma jox diw ak diw. non laajuma kenn. laajuma ma leen bës bi ñu ne sox moo ma laaj. ma leen bës bi non non xamal ma du question ay bës sax ndax fii bëri na samay morom yoo xamante ne amaana. ñoom ñoom ñoo ma gën a siiw sax amaana ñoom ñoo ma gën a siiw te samay morom la ñu ngi si làmb comprendre nga ñu ngi def seeni preuve ñooñu laa soxla fu mu toll nii du ma tudd benn tur nag mais ku ma si làmb booleel avance bi su ñëwee du dellu de. non du ma man xaw ma fuy ndax juddoo mu si fuy te yaroo ma si fuy màggee mu si fuy. dañuy kii. non non non non tout sauf man ginnaaw raa laa dëgg. Euh. mënu ma mel noo xamante ni dafay jaaxal nit ñi nii ma nii ma gisee nii noonu laa mel sunu koñ. amul dara loo xam ne maanaam nit da ngay am muy fëkk bët maanaam lii mënu ma kaa am dinaa ko yéene nag mais man dara jom ma si àdduna te lu ma munti am tam lu ma munti am fii laa la ko waxee maanaam nii ma mel nii noonu laa mos a mel ba keroog may dee ndax man dañ maa yar ci ngor ak fulla ak fayda wéet gore wéetaloo ko gore su ma amee ak su ma ñàkkee yëpp laa yemale. benn part doon na ma ko wax ne nit lépp loo ñàkk mën nga koo amaat. waaw ba mu des jom. waaw ak dignité. man fulla ak fayda dafa ne si man ndax loolu lañ may yéree ñun suñu waa mun nga ñëw mun nga ñëw nii si làmb nii nga jàpp ñu manipuler ñu daan ñu de mais ñàkk fay rek musul ko wane si làmb te du mus a am xëy bu ñuy ñëw nga ñuy rey sax dinañ taxaw nga rey ñun ñun Casamance lañ amul dellu ginnaaw si kanam rek. bàyyi ma nag man fu ma neex laay xool bàyyi ma xoolal fii xoolal fii soo amoon kàddu yu mujj lan lay nekk. waaw di bëgg àdduna rek dafa maa bëgg dafa xoolal fii xoolal fii doo ma bàyyi ma xool fu ma neex. waaw c'est <laughs> a xool caméra yi tamit di bëgg àdduna rek xam nga di bëgg waat képp kuy bëgg fi déew rek maa ngi lay bëgg bu baax di nuyu sama mag layti moo seen xam nga sama papa Ibu Diop sama ñaari yaay maa ngi leen di nuyu bu baax xam nga di nuyu waa mbelu ngi yëpp comme ni ma la ko waxee képp koo xam ne ni mu ngi sonn si man rek maa ngi lay bëgg di la ziar xam nga di nuyu sama tooma papa bi mu ànd ak Ibu Diop de maa ngi koy bëgg bu baax di ñaanal comme daw rek Siteu bu Ngor yàlla may ko ndam bu sedd guy. Mm-hmm. képp ko am combat olympique de maa la ñaanal yàlla may la ndam. di nuyu képp nag di Farba Espagne maa ngi koy bëgg bu baax di ko ziar ak jawaram yëpp xam nga dañuy sonn si ñun quoi. billaay maa ngi bëgg képp kuy bëgg fii day bu rek maa ngi lay bëgg baax di la ziar. Mm-hmm. gis ngeen mbokk yi noonu lay demee ci jàmmaarloo woo ñaari bëri waxtaan ak ñoom waxtaan seen carrière waxtaan li nga xamante ni moo nekk seen kanam mais ñoom naa nag mbokk yi combat la combat du ko dàq ndax diggante caaroy la ak ginnaawaay boo xoolee ni ko soq de waxee route nationale ba moo dox seen diggante defe naa loolu boo ko tëggoon ak waa Ngor sax nag ndax ndax olympique de Ngor nga nekk. fa la yeewoo fa la yeewoo fa la yeewoo boole ñaari gox yi mbokk yi làmb du ko dàq maa ngi ciy woo promoteurs yi nga xamante ni yëpp dañuy dañuy faral di bàyyi xel fi nga xamante ni mooy wasaare ak jàmmaarloo ndax combat yu bari mbokk yi da nga leen di invité mais après da gis ne dañ ciy def ay démarches des fois yenn yi dina taxaw yenn yi des fois ci mbëri lay tagee mbëri nag daf cee bari ñoo xamante toog wax ba mu neex leen seetee ñu laaj xaalis bu bari wala boog ne bëriwuma ak moom ndax am na ñaari fi invité woon coow li promoteur bi mu toon ñoo ngi leen ki sax am naa dina xam mais sama waay la di ko wax nag na jël combat bi ndax bëgg na ko toog boo moon kàddu mujj lan lay doon waaw man comme maay santaar waa Guinaw Rail rek fu ma jógee ndax nit moom amoo loolu fa nga dëkk. Mhm. di sant waa Pikine bu baax. rawatina suñu waa koñ nag RM4. ndax sama combat yi passé nii sama booy maa ngi leen nuyu di jël nuyoo bi di ko teg si loxo Bili. ndax ñun moom mooy suñu grand quoi ñun booy koñ bi suñu lépp moom lañ ko jox. sama combat yi passé nii affaire yi xawoon na métti torop na si préparation bi. mais combat bi li taxoon ma gën tee teg sama bakkan man su may bëri waa ginnaaw laa dañ may ketal kër ku nekk deux mille deux mille wala mille franc mille franc. par force. te billaahi laa la waatal fii laa ko waxee am na su ñoo xam ne barki alxuraan dañuy këccal seen dépense di ko si kii mottali di joxe si ket bi comprendre kon maa ngi sant sama booy bu baax waa ma fi yaa xajamal yëpp di sant saal may entraîné top 5 fitness si Thomas. Hmm, top 5 maa ngi sant Thomas bu baax moom daf may jàppale si lépp billaahi ak ñoom seex gars yi fa nekk yëpp ñoom alu waaw di sant nag Onde quoi moom sama mag la. chaque chaque quatre ma du matin billaahi wallaahi ond moo mun ko dul booy Dakar. billaahi chaque quatre heures du matin. ba billaahi chaque quatre heures. nag maa ngi lay woo fii. loolu moom fa force la. wër na yàlla on dama koy sant na xamal la moo tax chaque quatre heures du matin moo may yeesi chaque jour bu génnee këram day jaar suñu kër yéema ñu ànd entraînement dem salle musculation fajar heure boobu noonu ay huit heures dañuy ñibbi si waat kon moom maa ngi koy sant bu baax ndax combat bi jàppale na ma si torop ndax mbër moom lu nga mën sa moroom mbër rawatina sa rak entraînement rek. Mm-hmm. sant naa di sant waa ginnaaw raay di sant waa Pikine di sant waa Casamance nag suñu dëkk ñaawlu Mosor Kajaakaay Bukot buy Jembereng hmm. maa leen sant bu baax combat bi demoon naa foofu jàppale nañ ma di sant sama mag yoo fa ak ñoom Bernabel ñëpp ak Matel sama xarit sama boy nag waa il bi xam nga ñun moom dañuy cuuc cap fépp waaw di sant waa Basol waa Ñoojoor waa Munde di sant sama père Bouba sant waa Joof yoor yëpp Ismaila maa koy sant bu baax. ñëpp xam na ne boobu mag maa ko moom. waaw dégg nga daa il bi sama il la. no ah. <laughs> kay moom leer na. xam nga maanaam moom moom na xam rek. moom na xam boppam. na xam maanaam ñun comme ni mu ko waxee léegi rek. moom na jàpp ne moom moom moom foofu rek mais munul moom fépp. Ah. ndax fa la dëkk mais munul moom fépp. Hmm. comprendre nga. day jël waalam ñun ñu jël suñu waal rek ndax affaire da ngay uti rek Ah, loolu kese la waaw maa ngi sant nag Baye Fall bu baax mbaaru baala Esa ak ñoom Baru booy ak waa Fassut bi yëpp maa ngi leen di sant bu baax di sant sama nijaay Jibi Joola dafa sonn si man waaw te war naa góorgóorlu si làmb nag ba fay ko ak jëlli sama mag ak sook ak sama magu jigéen faatu lépp nag waaw maa ngi sant sama yaay bu baax ndax wax dëgg yàlla metti na trop mais comme moom instant yii nangu na mu bëre maa ngi koy di ko sant waaw di ko wax mu yokk ñaani nag incha allah léppay baax. waaw di sant sama kër bu ma nekk nag sama meer bi ndeysaan benn mère pël bi dafa gaañu ñoom ñaar lañu woon kenn ki dafa gaañu. waaw maa ngi ñaanal beneen meer bi yàlla defal ko wérgu yaram ak gudd fan tal ak fekkee bu mu fekkee sa mu njëriñ li may ut nii nii si làmb nii yàlla ma si yàlla teral ba ma defar ko ba ma defal ko ndax am naa mébét boobu si moom ko ak paa bi ak waa kër gi yëpp di sant dembo nag ak góor gi mooy magu kër gi waaw di ko nuyu bu baax di ko teg si loxo mu bégal ma gaa yëpp waaw maa ngi sant ñëpp nag bàyyiwuma kenn waaw waa Guinée Bissau maa leen sant nag ndax sama yaay fa la dëkk maa ngi sant ñëpp. daa mel miin na àll bi de. miin ay Guinée Bissau ay ay. non <laughs> ñun ay nitu àll lañ. <laughs> tey jii nii. si da lay sax de maa ngi commencé tiit ay Guinée Bissau ay affaire man joolaa la man joolaa la sama yaay Guinée Bissau la dëkk. c'est normal ma toog fii sant waa Guinée Bissau ndax dañ may jàppal ndax ñun dañuy dem foofu suñu amee combat bu ñu amul combat dañuy dem. waaye nag réer na moom Casamance dëkk. waaw mais waaw kii sama mbokk Casamance la àll <laughs> bu vert bi boo ñëwee loo xuus jàll de. <laughs> mais nag ñu ngi sant ñëpp ah. di sant sama père Zil Balde xam nga moom moom da siy jàpp lu dul loolu waaw di wax ama xam nga yàlla na ko yàlla may xolu muñ quoi ndax métti na trop ndax man xam naa lu mu des ci combat bi ndax dañ doon ànd si lépp si entraînement yi si lépp muy préparer combat bi kon bu ñu demee ba affaire demee noonu di xam nga ñaanal yàlla combat bii nii comme noonu la demee noonu la ko suñu boroom tuddee yàlla na ko yàlla may xolu muñ mu xaar ak jàmm mu loo nag di ko wax moom wéeri wéeri jaari ndaari rek waaw yàgg yàgg moom xanaa mu bàyyi làmb de mais en moom day indi moom loolu moom amul sikki saak. Hmm. soobee yàlla. gis ngeen mbokk yi dafa loo fàtte. waaw di xam nga sama garaay dama leen fàtte rek maa ngi koy bëgg baax di ko jaar Coly Faye sama comédien bi. koli koli targinaa bu ñuul bi ñaaw na trop. ñaaw ngelam bi koli koli moo gën <laughs> bu rëy <laughs> xam nga. Dóor ak Mamou Thiar xam nga di waa Palmarin yëpp. papa papa Baba Aliou maa ngi lay bëgg di la ziar xam nga comme ni mu ko waxee rek waa Jon Waar xam nga waa Ñoojoor waa Baasul Baasaar Siwo Falia xam nga arrondissement Fimela yëpp Ndios moom xam nga Ndangaan. jilaas ba joof yor ba fi mu laa maa leen di bëgg ba leen jaar xam nga di bëgg képp kuy bëgg fii de maa lay bëgg waat bu baax a baax a ah maa ngi sant tam waa Enda quoi ñooñu samay waaw ñooñu moom samay lépp lañ di sant waa Guinaw Rail surtout ASC bi ak ASC yi fa nekk yëpp jàmmoo yaakaar mango ji maango ñëpp di leen sant ak jokkoo gars yi fa nekk dañ may bëggee te dañ may jàppale comprendre nga di jël nuyoo nag xam nga di ko teg si loxo Alsane Diagne mooy président xam nga Guinaw Rail waaw di leen sant ñoom ñëpp ndax gis naa seen taxawaay si combat bi sonn nañ si lépp ak Baye Matar sama grand waaw ak mbës borom Argentine waaw Samba Ndaw borom Argentine maa lay bëgg bu baax mbës jàppale na mu baax si combat bii nii waaw di sant ñëpp nag rawatina sama nijaay ndax lépp moom la waaw kalmu Ndour maa ngi lay bëgg xam nga dooleel bu baax. maa ngi bëgg suuna suuna. kalmu Ndour gaskel maa ngi moom mooy jox ma reer. moom mooy jox ndéki moom mooy jox añ moom mooy jox ma reer te ma fay. xam nga ku lay xont moom kooku amoo fayam waaw di sant waa kër gi yëpp nag ak mère Ndaw di leen sant bu baax waaw di jël affaire di ko teg si loxo suuna xam nga ndax moom moom da siy jàpp bu baax. Mhm. waaw moom bañ na ko bu ma ñëwee toog si palaat bi sax ma ma xam nga dama naan xoolal loo bëgg rek nga ndékkee wala loo bëgg rek nga reeree. te loolu noonu yombul quoi koy sant demee ci jàmmaaloo xam naa ne su ko nuyoo dinaa la ko maa ngi nuyu Mata bàyyi nga ma. tang maa bàyyi mais amul problème bëgg naa la bu baax a baax sama waa ji di leen jox dig daje beneen yoon ci Wassare Lamb cuun sama policier bi maa ngi koy nuyu bu baax di ko wax ne nag day jàpp ci samay ndax fu ma soxlaa rek dama koy ñëw ne ko cuun tey damay génn wala cuun damay tournage mënuma kaay ma def la ni ak ak ñii sama policier bi maa ngi koy jaajëfal bu baax a baax di ko nuyu di ko jaajëfal di ko nuyu moo jabaram ak njabootam ak ñëpp di leen jox dig daje Khalil kontaan naa ci yow tey moom dama laa teel a yee di jox dig daje beneen yoon ci Wassare Lamb beneen jàmmaarloo jaa ngeen jëf.